jërë ngeen jëf moo ko Wassare Lamb Wassare TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar leen bëgg bu baax a baax di leen woy tey di leen wax ne tey yéen a ngi seen émission yi ñu bu bees bi ñuy wax jàmmaarloo ku ne jàmmaarloo nag su ngeen gisee ni ñu toog yi xam ne tey du mbër lañ fi dalal waaye ay supporter lañ fi dalal ay ñoo xam te dañoo bokk ci làmb ndax làmb nekkul mbër la bokk làmb fans bi ci la bokk làmb amateur ci la bokk dañuy xool koo xamante ne nag bokk na ci làmb wala jege na mi ñu woo ko fii waxtaan ak bu gisee ñaar ñu ma fi dañoo nekk ñaar ñoo xamante ni dañoo jege seen i bër dañoo nekk ñaar ñoo xamante ni dañoo na làmb euh, wasaare dafay innové tey ma fi ki nga xamante ni nii mooy supporteru Sa Thiès sama doyaat maa ngi am ki nga xamante ni mooy supporteru Garga Mbossé ñu ñëw war a waxtaane ci làmb làmb ji ñii ne leen taxaw na ñu dégg avant làmb ji Sa Thiès wax na fii Garga Mbossé wax na fii supporter na dañ cee bokk dañoo wax seen avis wax ni ñu gisee làmb ji ma dalal ki nga xamante ni nii mooy Ama Ama ziar naa la doomi ay di la kontaane di nuyu monde di nuyu waa Wassare Lamb bi yëpp di leen kontaane euh, tamit di nuyu euh, Mourane sama xarit euh, bi nga xam ne moom la di nga xamante ne nii tey moom laa fi toogandoo nii ci émission bi. Mm-hmm. waaw naa ko moom na pare ndax ku ne xam na ne Sa Thiès ndeysaan moom li mu def bare torop maa ngi lay kontaane bi dama waaw maa ngi lay nuyu. ziar ziar waa Wassare lépp ziar ñëpp ah di wax sama waa ji maa ngi koy ziar ama bu sàccee sax ah. mm-hmm. waaw maa ziar waaw. ñu gis ne Ama ñu gis fi mu toll di yëngu mais foo toll dégg Sa Thiès Garga Mbossé Sa Thiès Garga Mbossé man mooy làmb yi gën a neex ci saison bii ñu naan la jëm ñu naan la jëm man noo gisee boobu combat. waaw combat boobu combat bu neex la. combat bu neex la et tout làmb la ay naataango lañ mais ku ne xam ne ne Sa Thiès def ci làmb dafa bari. Mm-hmm. te sax amaana dafa jël combat boobu mais loolu làmb ndax ku ne xam ne ne Sa moo man Garga Mbossé. waaw li nga wax. Oh. que àdduna la Sa bu tëddoon dina moo man Garga Mbossé. loolu mënul nekk Sa Thiès mënul loolu ay wax la Garga Mbossé combat boobu combat Sa Thiès yàgg nañ kaa dox. Sa Thiès dafa daw. àgg naa daw musu ñeme musu non Sa Thiès musu ñeme Garga Mbossé. cinq ans cinq ans yi si ginnaaw chaque année nu dox. chaque année nu dox combat boobu waaye dem jëli xool lu gëna a nooy bu dem jëli ko. Sa xool lu gën a nooy. Sa Thiès bu muy bëree Garga bu muy bëree. Sa Thiès bu muy bëree. supporter yi sax beneen bi dóor ba supporter yi Sa Thiès mënul doon góor ah, Sa Thiès daa mënul su jëloon avance. su tëddee ba guddi xam na ne am na combat combat boo xam ne musu kaa am. ndax Sa Thiès Sa Thiès bu ñu bëree bu ñu bëree tonné. Garga Mbossé ko proposé. Hmm. mu bàyyi dem jëli tonné bu ñu bëree largos Garga lañ ko proposé daa bàyyi Garga lu mu dem daane lu gën a yomb la bëgg lu Garga dam daane muy Sa muy. Tonnerre kii Tonnerre Lac Rose mu dem jël ndax nooy neex Sa lu nooy rek la woon Sa Thiès musul bëree combat bu métti yii nii xalaatu Sadio su bëree kii am problème non bokkul ah Siteu Siteu Siteu la Garga du Siteu Garga Mbossé du Siteu non non Garga Garga du kii non non Sathies Sathies Sathies bu arbitre bi soufflé ñu tëj barrière yi barke Serigne Bamba Mbacke Sa Thiès la dox ci kaw nu ko duma. te dina ko Sa Thiès dox ci kaw bëgg mënu dox ci kaw gargaw. ñoom supporter ba nii liggéey ñoom. yow yaakaar nga ne Sa Thiès bu jàppee gargaw da koy duma. du yow da koy duma day dox ci kaw duma ko supporter dañuy liggéey. Sa Thiès nekkul mbër bu ñemee xeex ak gargaw wax jaa bëri rek. suuf Sa Thiès ñoom mënu xeex Sa Thiès nekkul mbër buy xeex. Sa Thiès day yoor Sa Thiès day yoor ñemewul ñemewul gis nga abis benn lamb ji lu sa am abdi sifflé day si kaw jéem a dóor garga may ko gos bi bu tax su taxawee nangoo xeex cinq minutes garga da ko dóor mu daan moom loolu leer na ma yow yow daal jàpp nga ni man combat xam nga laa si gën a bëgg ah. bëggoon mu bëre xeex laa si bëgg ah xeexee garga ñeme loolu ay wax la garga yaayaa ay xeex garga <laughs> combat combat yëpp gars da leen dóor nu kaaw dem na ba gars yi bëggatul loolu làmbam nay wax muy wane bëre garga xeex la gën a mën ko bëre te su taxawee sàcce sàcce su taxawee. sàcce su non non non. kii xam dara. non non non non loolu du dara. mais nag dafa di sàcce. am na magi mbër buy sos. Mm-hmm. Mm-hmm. ba pare dañoo yoo xamante ni ku ci nekk bëri ngaa moom. Ah. Mm-hmm. Sa Thiès daan na ñaani kenn ki moo daan Sa kenn kee daan ki nga xamante ni mooy Garga Mbossé. kon ñoom ñaar dafa mel ni làmb boole na leen. bu leen boole dafa yàgg waaye Sa Thiès dafa am su ñeme. lamb bu leen boole yàgg na. Sa Thiès bu tàppe Sa Thiès. Sa Thiès xam nga Sa Thiès Sa Thiès lu tax wuy ma wuy ma wuy ma man fu ma fu bañ a sigg ñoom ñaar ñëpp fekke naa lu ma lay wax ni lu yàgg la fekke naa leen dinu fajaa ñoom ñaar ñëpp di entraîné lu yàgg la waaye li waaj li garga di entraîné Sathies mënu ko waaw li nga wax walaay fekk naa leen dinu fajaa golf ñuy entraîné lu leer laa la wax man maa leen fekk ñuy entraîné leer laa la fekk naa la ñuy entraîné ñoom ñaar lu Garga di entraîné Sa Thiès mënu ko a waaw. am naa fi mu ñëw bokkul sax non du mais ñoom ñaar ku ci nekk am naa sa vidéo fii. Mm-hmm. Ah, bu ci kanamee Sa Thiès xool entraînement Garga Mbossé. Mm-hmm. tax ba léegi ah làmb ji Garga Mbossé Garga Mbossé ñu moo doon jël avance bi. déglu déglu ma ñëw déglu ma ñëw. xam nga sax làmb jamono yi taxaw. Garga Mbossé. jam làmb bi tax taxaw si promoteur yi. quatre ans yi yëpp noo ngi koy dox Garga pare na waa Sadio ñemewu. Sadio toog na deux ans bëriwul Sadio toog na deux ans bëriwul. xam na su jëru Garga Mbossé ren. day année blanche làmb da koy fàtt làmb da koy bàyyi comprendre. Mhm. loolu tax mu nangoo jël. kii bi mu nangoo jël avance inspecteur promoteur la des waa Garga pare na yàgg na. sànq dafa am wax ju mu wax nga dégg nga wax ko. Mhm. mooy da nga ne Sa Thiès ñemewul xeex day yoon. lu tax nga Sa Sa Thiès ku seetaan combat xam na du xeex. Sa Thiès non non du nekku mbër bu xeex. non non nekku mbër buy xeex. waaw Sa Thiès nekku buy xeex. Sa Thiès nekku mbër bu xeex benn kii la am su la kii daw na song yooru sa day yooru ñemewul kuu. laaw lay daf ka laaw yu muy def su ko defee gargar nga doon wàcc. yaakaar Sa Thiès xeex su mënee xeex doo laaw Sa Thiès day laaw xeexu mbedd lay xeex garga xeexu làmb lay xeex garga ko dàq xeex dàq kaa bëre du moromam bokkul sax. moom <laughs> man mii sax añaguma dégg sa jaaruma si. moom li muy ah, wax mais ku ne xam na ne li mu war a joom ku ko bëgg a wusaw. non wax jaa bëri rek ah a Sa Thiès. Ousseyn non non Sadio non Sadio. dafa daan may ko si tërël mu mën a mën a. xool ay Boy Ngaay Boy Ngaay ku ko xam. ku ko xam. ko xam xaw ma ko. kan moo ko xam. yow meesu Garga. Garga. Garga Mbossé Ousseyn Diop. kalaafu dugg. wuyu ma Garga Mbossé kalaafu gën a métti. wii ma wii ma kalaaf la dugg kalaaf bu gën a métti la mhm. fekk ay magam nu ko ëpp doole fuuf mu ñafe dem ba final ñëpp la dóor ñii da leen doon daanu ñii da leen jaay daan jël ay assurance bu mbuur mhm. ah combat yu doo kooka combat yu rek gën a rëy yooyu kalaafoo année boobu moom moo ko jël dem ba final yàlla dogal si mu perte waaye waaye garga garga nekku mbër bi kii garga làmb làmb doy waa waa garga ainsi waroon na paase garga mbos bu ma gis jamono ji macha allah état bu mu nekk gisuma mbër bu ko mën a daan jamono ji

Sa Thiès ay ña ñaata VIP la fi daan. non ay boy nga man limal ay adversaires populaire laa leen limal. de Sa Thiès. waaw ku dul Siteu. waaw déglu déglu ma limal la ma dégg. yow yow yow yow yow lamb ba mu dee ba tey. Hmm. yow ay boy si yaa dégg. ah ay Lagros yow yow xam nga yow sa waay bu muy daan Lagros <laughs> kenn ñemewu kaa jël. Garga Mbossé bu muy daan Lagros kenn ñemewu. saa ci naa daa bàyyi ba Garga daan nu mu daan mu doon xool gënoon nooy jël est-ce que comprendre non Moussa Dioum yow Moussa Dioum Moussa Dioum soo ko tegalee ne Garga Mbossé bokkul sax nelaw Garga nekku Garga Mbossé nekku mbër bi la wax bàkkaar. waaw bàkkaar bi ci moom dina ci àll bi te dooram ragal moo ko gën a bu jéemul saa yi kii xamul non non kii xamul ah, laam bu ñuy duma amul Garga Mbossé mbër mënu ko duma. koo duma ci laam. non non moo li leen mooy am dalay duma na Garga nekk mbër muy duma kan duma Garga Mbossé Garga Mbossé ñi ko duma. Garga nekk mbër muy duma Garga duma.

sappoor a koy génne instant sappoor moo koy génne instant laa la wax seetaan moo loo am seen moo loo am seen sappoor a génne instant te wuyu ma mu ñëw barke yooyu dégg nga ba taay ñu naan la yóbbante mbal ba ubbi laa sa waay bàyyi añ ba suur nekk fii di wax yow xam nga ne arbitre bu ñu tëjee barrière rek arbitre bi dox seen diggante hmm. barke Serigne Bamba Sa Thiès Lac dina dox ci kaw Garga Mbossé dina ko duma dina ko daal gars yi ni lay demee jàmmaarloo lay doon ah fii ci wasaare làmb ñu andi ñaar ñoo xamante ni dañoo bokk ci làmb ñaar ñoo xamante ay fans lañu wala ñuy supporter wala ñoo xamante ni dañuy jege mbër toog fii waxtaanee ko parce que làmb amateur da cee bokk supporter da cee bokk tey nag ma dalal ki nga xamante ni mooy Ama bu Sa ki nga xamante ni mooy Pa Aliou bu Garga Mbossé sëñ Bas mën nañoo dem xoole entraînement ki nga xamante ni nii mooy Sa Thiès te dellusiwaat

waaw li nga wax. non entraînement yambar bi mooy lan. lu si dara glace la rek. glace la rek du hmm. dara. waaw foofu. na ah, ah, na Sadio muskili la. loo bañ bañ la. du tee nga waxal ko am maanaam. barke Serigne Touba mu xool Sadio xam ne dafa liggéey. Garga Mbossé kay moom nga gis biir bi lépp di ndoxam kenn mais ni kuy lekk kelemantine. kelemantine ba ba ma ma gisoo Garga Mbossé. Garga Mbossé jël ay arrière takk ko mel ni fas wu fas yooyu ñuy takk màggala Touba. liggéeyul dara yow xool sa us dem géej géej di cëpp cëpp yomb na. su ma neexoon chaque jour ma topp suuf si bu ma demee. kon kon yow sa waay kon xamoo bu ma demoon géej nga tudd yàlla lii muy def du dara. mais li mu def est-ce Sa Thiès mën Sa Thiès waaw bu mu tax man mer waay yow kii kii lii muy def da dara lii ma man ko nga naan Sa Thiès na ko. lii man man naa ko. billaahi man naa ko barki Serigne Touba lii muy def man naa ko. mais liggéey Sa Thiès moom ku ku xool li muy liggéey xam ne kii day yeewu dem entraîné ji ku ko xool xam ne xale bu am doole la barki Serigne Touba te li ma lay wax mooy bu arbitre bu ñu tëjee barrière rek arbitre bi soufflé. wurewa dem kër ngooxi mag dem ndataaj ba gwar mbaam billaahi Sa Thiès na dox ci koom dina ko duma combat bi du yàgg mm. da koy daan facilement du la am nee naa la Garga Mbossé moo a bàkkaar gëmoo ma ba ci Sa Thiès buy wax nii lay ko Garga sa waay moo raw bàkkaar tapet la wax de Sa Thiès na Garga Mbossé Sa Thiès ban xam Garga Mbossé ah, xam na Garga Mbossé kay ndax moo jegewante na xam nañ ne dañu bokk ah, leer naa man xam naa mu dama yàgg nañu dee entraînement garga même su ñëwee entraînement entraînement garga rek lay da koy suivre moom rek lay loolu tax làmb ji yéex si moom. daa ñu waroon baax bu yàgg loolu mu yéex ñemewu ko. daa dem ba xam ne moo fa sës mu bu kaa jël. day bañ année la. xam ne làmb day yomb ci jóge ci défaite est-ce que combat dina yomb mu ñëw jël Garga Mbossé. non da koy Moussa Ndoye mujjee da koy daan non da koy daan combat bu moo gën a yomb si suñu combat yi ñu jël loolu ñu ngi tëdd sax di nelaw dafa mel ni sa du làmb billaahi ñu ngi tëdd sax ah kooku bu kooku doon tëdd di nelaw sax moom mënu ñoo yee gis ngeen ni lay demee jàmmaarloo ci biir Wassare du yomb làmb dafa baaxoo lii làmb dafa baaxoo coow ndax ci biir coow làmb taxawee ci biir coow làmb deewee na ci neneen léegi nag ñu ñëw ci li nga xamante ni nii mooy am na vidéo yoo xamante ni jotoon na fee jaar ci biir Wassare ndax seetu woon naa ki nga xamante ni mooy Garga Mbossé seetu naa ki nga xamante ni mooy Sa Thiès ñu dem ki nga xamante ni mooy Garga Mbossé lan la wax boobu làmb ji ci waxaguñ ci yaakaar naa lan moo jaadu sa bon combat. <laughs> li jaadu man pour man mooy ma bëre rek. non dé da nga combat bi jaadu. bi bi jaadu laa bëgg ñu wax. li waxuma combat bi jaadu dama ne lu jaadu. waaw ku ko dégg da koy xam. lan moo jaadu lu jaadu mooy mbëri am combat bëre. muy man ka muy sama moroom waxin la rek loolu. man naa benn booy bu nekk fii ci ginnaaw. Mhm. moo ngi takk rajoy di wax ak. kan la. Sa Thiès. waaw lu mu wax. ah li mu wax kay ñëpp dégg nañ ko yow sax dégg nga ko. déedéet mais li mu wax lépp xam nga mënu ma ko tontu. Hmm. da nga naan wax na nangam. léegi ban nga ci dégg yow. non man di bàyyi ma ko xel sax. Hmm. li ma ci waroon wax wax naa ko ci voilà. bàyyi ji li gis naa ko mu am ñum seeti nee nañ an proposé na adversaire mais ñoom nee nañ Garga Mbossé moo leen gënal. comme buñ la ko ah ñu ko jege. ñi jege kan. jege Sa Thiès ci boppam. ndax nee nañ yow loo mën a am bëgg Sa Thiès moo la ko gën waa xam nga nit moom mënoo xam sa gént xam sa gént morom ñoom ñooy wër di wax ñooy coow ñooy créé lépp xam naa lépp mais fii moom mënoo nettal sa gént nettal sa gént morom man maa ngi ci làmb ñoom ñoo ngi ci làmb ci bu yàlla dogalee ñu war a bëri nañ bëri parce que ay ndaw lañ dañuy mayante xaalis dama la wax léegi yaa ngi Moussa Ndoye nga ne ay adversaire ñëwoon boole te yow ak Sa Thiès bokk ñetti adversaire da daan la góos mu daan la góos nga daan tonnerre mu daan tonnerre nga ñëw Boy Niang daan la Boy Niang moo ko daan. booleeg ñu duggandoo ci làmb ci benn saison. mu bëyal la petit combat nga bëyal ko grand combat. waaw ma ne booleeg ñu duggandoo ci làmb ci benn saison. Hmm. parce que benn saison boobu muy wax noonu. Hmm. ci laa dugg bëreeg Cheikh Diop daan ko bëreeg Ndiakhoum daan ko bëreeg Ibou Fall daan ko man yàgguma ci combat préliminaire. loolu moo tax ma bëri grand combat mu bëri deuxième combat mais loolu lépp du wax gis nga nit nit rek la mën a doon booy wax ñetti nit ak ñeenti nit di la déglu rek war ngaa xool ni ngay waxee man kilifa laa duma ma xasante du ma waxante wax bu ñaaw bëgg combat bu taxaw du tax ma wax kenn lu ma ko war a wax. nee na moom ñu fi nekk di tontonteeg ay boo yoo xamante ni nii ndax moom kilifa la ci làmb baaxul ay dàggasanteeg ay coow noo gisee loolu moom ni ñu ko waxee. noonu la demee ku xam Garga xam na moom bëriwul coow nekku mbër buy coow. Hmm. amul ba si ay supporteram nekku mbër yuy coow. làmb nag daa bëri noo xam ne waxkat yaa fi bëri. waxkat yaa fi bëri. waaw daa bëri ay waxkat mais si na nga ko yokk si bu ne waxkat bokkul ay yokk xam ne waxkat mooy tàppet si gàttal. tapet. maanaam di wax ku bëgg làmb ji ah, taxaw waaw kay waaw ah, kay di wax pour làmb ji taxaw wala naa nga a bëri ay tapet làmb ji comprendre la demee. ah mu gisee di gars yi moo si wax nee na moom bu nekk moom loolu du ci dox moom. lu mu a a nekk nekkee ci làmb moom Sa Thiès mooy nekk professeur am. mais ñëpp nag dañ koy bàkkee dafa mën a wax su waxee ñëpp ne mbër bu intelligent mbër bu muus est loolu moo tax mu nekk tàgg sante bi non day wax rek pour ñi ne day dox ci maayanu gars yi te yooyu mooy loolu moom bu dee am na fit day combat bi da koy bëri te bàyyi yi muy wax yaa ngi dégg. mais moom yaakaar naa ci promoteur la des. waaw mais promoteur bi bu ko tëggee na jël avance bi ñu ñu duma ko daan ko. Ah. man moom li ma la wax rek duma rek daan nee naa Garga Mbossé ragal la ah Garga Mbossé moom sa waay mënta nekk moom bu nekkee maître si laam Sa Thiès professeur la. maa la wax loolu te Sa Thiès du. kooku du tapé su jeexee Ouzin xam kii professeur. waaw bu du mat cinq minutes Garga duma ko daan ko. est-ce que combat bi dina dina dina gaaw baax. gaaw du gaaw yépp si Sa Thiès lay dépendre moom kon lu mu doon daf gars yi loolu laa bëgg mu dafa ko Garga Mbossé. ah bisimilah dindi loxoom seen diggante mu ne. loolu laa bëgg loolu su ko defee gars yi bàyyi ko si làmb dootu ah, ko defat gis na lu ko Malick Niang defoon lu ko raw la ko Garga Mbossé def. parce que su dina toog deux mois yoo xam ne du génn këram Sapeur nee naa Sapeur nga génne stade jour boobu. mbaa day def ni mag yi day gàddaay. wax ma la lu raw gàddaa lay def xam nga amoon nañ si dafa lu jigéen n'est-ce pas. waaw bii moom su demee dootuñu ñëwaat xam mag gàddaa lañ ñëwaat amoon su gàddaa dootuñu ñëwaat day génn dëkk bi dama gàmmi. waaw du muy day wéy championnat gàmmi lay bëree foofu. <laughs> nga dañoo seeti Garga Mbossé fan yii rek waxtaan ak moom mu ne yow sa combat yéen ñaar da ngeen koy dox dox ba soon mais sa ci yow looy daw ci Garga Mbossé yow ñeme woo Garga Mbossé parce que Garga nee na seen combat yéen ñaar gaa ngi koy dox ba léegi mais yow yaa nangutal ki jël avance bi lu waral loolu. waaw xam nga seetaan naa ko seetaanitu ko di ni gis nga doomu aadama nga dund gore nga dee gore. mun naa d' accord moom peut-être am na ñu ñëw ci moom na ko Sa Thiès nangam loolu moom la engagé mais dama ne man ci ginnaaw musu gis nga combat bi ñuy dox ci journal yi du ko du fen ñoo ko njëkk a affiché mais musoo leen toog ba gis journal ñu affiché Garga ak Sa ñu ngi koy dox. mais gars yi ñu koy dox. non non dama ne fii làmb léegi la ci deux ans yi mais boo génnee ci deux ans yi li ci jëm kaw. combat bu fu nit wax duñ dugal nañ ko journal bi te yéen ñi nga xam ne yéen daa ko wax yéen a ngi doon coow ci wax ji yow mosoo toog ba dégg mos nga da nga a toog ba wax ju mel noonu mosul am. mais Garga Mbossé Sa waxu maman bi ok mais période yi muy wax dama ne jamono jooju moom kuñ ko doxal combat am bu buy do buñ ko dox laa di ko wax da ngay gis ñu affiché ko ci journal yi. man Aziz Ndiaye bi muy tudd ay ñooñu man mosuñu maa woo di ma waxi Garga mosulam barke alxuraan te yàlla xam nañu mosuma toog Aziz mooy waxi kooku benn yoon la nit mos a taxaw ne man bëgg naa seen combat mais loolu du combat fii te maxu suba teel combat bi France ko bëggoon tëgg benn yoon boobu lañ ci wax mais boobu maxu dafa amoon eh, yenn yenn xaw ma ay kii yu mu waroon réglé ci yooyu la nekkoon mais amul benn promoteur ci àdduna bu mos a toog man Salif ñëw ci sama kër baa mu woo ma téléphone baa mu dem samay mbokk na ma sa combat Garga. leer na mais moom mooy toog naan ay diw jox nañ ko minti mille fois maag moom dana kay moom moo bëggoon bari sama combat maag diw ma loolu nangul naa ko parce que man jamono yi may jamono yi may bëri ak ñooñu moom mënul bëri ak ñooñu parce que boobu moom day daan di daanu man na dama nekkoon sama jamono victoire loolu moo taxoon période boobu man may bëri ak ñooñu. léegi instant pare man waxuma pare wu ma. damay dama la leeral moom loolu muy wax noonu tegu ko fenn waaw waxi waxi waxi waxi waxi la neex la rek la mais mosu ñoo toog dox suñu komba période bii nag dëgg la nit seet na ma nit ñëw na fi te duma fen presse moo fi ñëw wax dëgg yàlla di dox ci combat bi kak antum man ak Yékini Junior wala man ak gargamboos ku dee ak sa bàmmeel moom laa gis mu sabablu ci di ci sonn loolu guddeeg bëccëg suba ngoon chaque jour dafay day woote moom wax ak jox signé gu ña contrat des na ci entre ñaari adversaires yi am na nag tamit yeneen promoteurs yoo xamante ne soxla nañ ko. ni ko waxee Sa Thiès nee na musu ñoo dox. peut-être ñu dem ci Garga Mbossé waxtaan ak moom mais moom kenn mësul ñëw ci moom ne ko sa diggante yow ak saa ak Garga Mbossé xëy na moom mooy wër di wax naa nañ ma jox di wala moom ñu mu bëggoon ba Garga Mbossé dem jox ñooñu. waaw si parce que day wër rek di wax xam nga am waxkat moom sa waay da koy ba muy wër di wax yaa ngi dégg mais boo gis seen kër na waxande Garga day wër rek moo bëgg a yow kan nga bëgg wax ne mooy waxande que ñoom Garga Mbossé. Ah, Garga Garga ah, <laughs> daal seen kër am na waxande. waxkat boo gis seen kër am na waxande ñoom dañoo wax a wax a ba amee waxu ah. day wër rek di wax di ndeeloo non kon Ouzin man fawoon naa kii xam na la waa xamul la day delloo comme mos a gis Garga Mbossé nekk si télé yi wax waaye doo ma bàyyi Garga Mbossé moo topp Sa Thiès non non gis nga waaye Garga Mbossé topp Sa Thiès jox leen ma ko ma bëree moom Garga nekk moo soxla soxla waaw bàyyi ma ma Garga soxla Sa Thiès ba tey nii nii soxlawu ko su ko daan la koy wàññi nu mu koy yokk nu mu koy yokk ko Ah, yokk ci lim non non waaw xanaa su loolu waaw amul dara loo xam ne mën na ko dafa saa mais Sa Thiès nag bul fàtte ne Sa la Sa Thiès champion la nekk ndaanaan Sa Thiès bi daan nees nees Siteu rek la mu Sa Thiès bi mu daan lal ba loolu pare am problème zone mu sokkaa jël daan Moussa Diouf yooyu yëpp Sa Thiès dugg na passé non non waaye kii dafay duggaat dootu di pariser dégg nga la bi su duggee dootu duggati parcelle ba li nga wax xam nga moom golf la de boobaa su waree ñëw jub parcelle sa day wër. <laughs> teg waaw corniche ba lay jaar dem fu mu jox soxla jëm dañuy dugg biir parcelle te dañ fay duggaat dañuy dugg chaque jour dañuy ñëw si combat bi la dëgër deux lañ soxla ñun combat bi lan la glo la dëgër deux yéen bu ngeen jógee fa booy booy jël bàyyi ma ñëw Sa Thiès duggaguloo ci di wax la dëgër deux non damaa leen Sa Thiès la combat bu bu ñu jógee booy jël bàyyi dem jëli Lac de Guiers 2 moom lañ soxla barke yonent bi Lac de Guiers 2 Garga Mbossé mooy lamb dem wëri Baye Mandione Baye Mandione men yow Garga Mbossé yow xam nga ne Sa Thiès da koy yow kii moom Baye Mandione déggoo li ma wax Garga Mbossé wii ma waaw kon baax na ñëw Baye Mandione bu muy wax moomul Sa Thiès fuuf non na nga ko tëgg Baye Mandione Sa Thiès Baye Mandione loolu du lamb <laughs> wax daa bëri rek seega du lamb wax jaa bëri rek. du làmb loolu loolu du ay ay suba tere taxaw. nit ñi loolu rek laa bëgg insi. combat bi dafa taxaw ndax dafa nekk combat boo xamante mm-hmm. Mm-hmm. bu taxawee lépp lu amateur yi namoon ci làmb. Mm-hmm. dinañ ci jot ndax dinañ ko mandi ndax dinañ gis xeex dinañ gis bëri. dinañ gis ñu neex moom loolu. ba pare Garga war a dugg star rek wane njugam yëfu séeréer. Oh. bàyyi ma nga naan ma bàyyi ma nga naan ma bàyyi ma nga naan ma lan affaire yi tapé yow Sa Thiès mu lag ak jaaj yi xam nga ko non loolu doomi duubalees Sa Thiès rakki Balla Gaye de doomi duubalees mu wàcc garga su duggee stade Ousmane Diop kenn waaw bàyyi ma nga naan ma stade garga si boppam moo soxla garga bëriwut ay supporter nag sa waay garga moo si non non comme kii xamul garga baag seen dowa bëriwut ay supporter garga Kaolack garga c'est un ba vingt six padoa grand yo ñëppay ñëw ëmb ko bilaay ba si biir golf Sa Thiès dëgg noonu biir golf boobu ñëppay ñëw jàppale garga mboos xoolal Ousmane damaa leen barke yónnent bi. Mhm. Sa Thiès mën na koo may ay supporters. dañu xoola na nanoo ñëw ba fees ba ah, feesal stade bi dee may ko waaye doo ma bàyyi géej waay waay yow yow kii kii dafa neex rek man na may ay supporters stade bal lañ koy bëree mais boobaa su du nekk bu ko daax lay gis bu ko daax lay gis combat bii na lañ respecté Garga Mbossé combat bi ci leen wax Garga si leen gars yi xam Garga mooy kat si làmb su fekkee ñëpp jox cër est-ce que danger si Garga Mbossé. du danger Garga Mbossé non am lu mun a def Garga Mbossé lu ko danger bi Sathiès yow gisoo qualité fi mu toll non non non musuma nu ma kaa gis nit ñi ñoo xamul. ah man mu xam Garga Mbossé xam mooy kat ak jamono ji kuy Garga ma lu mu Sathiès xaju ko fenn taraw a naraw quoi. taraw kaa naraw man lu ma jaaxal. ki naan ki naan day def erreur di daan mais koo Ouzin imaginel kooku bu kooku bu gimee hmm. kooku bu gimee nu muy def kuy def erreur di daan kooku bu gimee du du rey nit. mais dama dégg léegi sànq sëñ wax nga ne abis la mu jëm ci kaw saa. day dox ci kawam si day dox ci kawam. ci compte moom Boy Niang est-ce que ko defaat ci combat da lu ko raw lay def parce que kooku moom loolu man maninam la da koo man ñooñ danoo ñooñ da du wàcc yoonam ndox du bàyyi yoonam day dox arbitre bi bu soufflé mu dox ci kawam loolu su ko defee nee naan sakoro gi génne Garga mu daw jubali ko defee Garga da koy dóor bu mu tëdd laa leer laa combat bi xeex laa si gën a bëgg ko bëri Sa Thiès fekkee am na fi dëgg loolu loolu gën a bëgg non non non non non non non non non non non non non non déggoo li ma la wax moom mënu kaa yëngal boobu la fexe na fexe ba bu mu ko jël ndax koo xam ne bu jëlee coup moom nelaw sa waay kooku na fexe ba bu mu jëlee coup ñi ma wut a jël coup tàppet la su doon nelaw sax pour ah. Sa Thiès dal ko mënu kaa yee ko ba la fa dul xaar fans yi noonu lañ koy defee seen koñ fans yi noonu lañ koy defee seen biir kër da nga ci gis benn kër boo xamante ni ay mag ak wala papa ak yaay wala doom ak papa wala jëkkër ak jabar yoo xam ci day far fii kii far fee ñuy jàmmaarloo ci biir kër yi tey nag ñu leen koy andil fii ci wasaare ah di ko defee nii yeneen mbëri boo Bordeaux Balla Gaye taxaw na ah Tapha Tine Boy Niang taxaw na Gouye Gui Reug taxaw na ñooñu ñëpp dañ leen fii indi dalal leen nii lañ ko defee ci jàmmaarloo euh, numéro bi mooy 038 57 86 77 038 57 86 ci ngeen ñuy jokkoo ñu mu leen a jël rendez-vous ñëw ñu ja jàmmaarloo fii paa di la wax looy tàggatoo. du di leen jaajëfal waa Wassare Lamb du rafetlu seen liggéey. yow Ousin yaa bàyyi jiile yeneen gars yi seen bas mi borom def de presse yu neex yi. Mm. di leen rafetlu quoi du jégalu kàddu yi fekkee xaw naa teg teg. mais dafa xaw a sedd mu gën a tàng non waa ji moo ragal rek waa waroon na gën a mën a tàng maa ngi jégalu ñëpp ah ñaanal sama waa kon waa parcelle 1 ba 26 di ñaanal ñëpp jàmm waaw di ñaanal sama yaay yàlla may ko gudd fan ak wér. amiin barke Muhammad ah kàddu yi mu ci lay yàlla julli ci yonent bi gërëm suñuy waajur euh, di leen bégee di leen jaajëfal yéen waa Wassare yëpp di kontaan ci dalal bi ngeen ñu dalal ci émission bi di ñaan suñ borom def ko ay télé ak ay rajo yu bari ci barke Sëñ Abdou Karim mu Sëñ Fallou sama yaakaar jooju ñaanal yàlla di ñaanal Sëñ Muntaxa yàlla na ko suñ borom bàyyi suñ kanam mm, euh, di leen wax ne waaw làmb jaa ngi noonu te làmb jooju dañuy ñaan yàlla rek mu taxaw ñu defal sa waay bagage ah di leen di nuyu waa HLM waa Bentali di béggee sama waa ji ma àndal Muudu Anta mm-hmm. di ko sant bu baax baax moom sama gaañ la te Eh, di la jaajëfal yow tamit parce que euh, sa waay sa waay nag moom danoo commencé rek mu waddal téléphone bi ma xam ne tàppet la du waxkat du waxkat mais ñu ngi leen di nuy yéen ñëpp di leen jaajëfal euh, di nuyu sama copain Mar baax a baax a di leen kontaane di nuyu waa sama soxna Oumy Gueye <laughs> <laughs> di leen jaajëfal ni leen demee ci jàmmaarloo di kontaan ci yow bu baax a baax gis nañ liggéey bi gis nañ ni ñu ci taxawee ah ci kaw ba ci suuf boo amee fii loo xamante nii dafay xew ñëpp dañ ciy jàpp ku nekk day bëgg mu rafet wasaare làmb la ndax wasaare moom ku ne xam ne noo lay demee su kenn dee def émission ñëpp dañ ciy jàpp ndax ñu ñooy feeñ ñu ñooy feeñ waaye ñu si gannaaw ñoo ëpp loolu maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa wasaare yëpp équipe bi Fatima Djili en ah, Kaggu Adama bëgguma lim suma ma limee dama juum maa ngi nuyu Modou Anta sans frontière moom sama waa ju baax la copain Ndaawali maa ngi di ko siyaa bu baax a baax gis nga ni lay demee ci beneen yoon ak euh, jàmmaarloo ci wasaare làmb jaajëf